docteur Cheikhou Sakho ñu ngi lay nuyu. ñu ngi waajal campagne vaccination jamono yoo xam ne am na ay observateurs yu ne dañu war a gën a baral lii di euh, test yi ngir ràññee ñi am feebar bi te di law ci biir euh, askan wi. waaw euh, effectivement ñu ngi ñu ngi ñu ngi jëm ci campagne d'abord li may wax mooy man wala ñun sax waa COSAS. Euh, vaccination bi lu lu am solo la ci ñun ñun euh, xalaat nañ ne waruñoo waruñoo waruñoo euh, boddi suñu suñu bopp ci ci doxalinu adduna bi science moo wane ne vaccin am na solo mun na aar nit ñi na tax en tout cas ba jàngoro bi ñu ñu ñu ñu maîtriser ko donc loolu war nañ war nañ ko kii te gis ngeen réew réew yi yëpp réew yu mag yi yëpp ñu ngi xëccoo di xëccoo vaccin yi bu vaccin yaa ngi manqué. donc loolu mo lay wan ne e euh, lu am solo la parce que ñoom itam euh, comme ñun euh, sunu sunu docteur yi fi nekk ñoom ñun ñëpp dañoo bokk sunu sunu sunu askan ndax ci <laughs> ñun ci ci la ñu bokk donc du ñu jël mukk lu bon loo xam ne e day indi ay ay ay kii ay ay jafe di ko dugal ci sunu askan te ñoom tam duñu ko duñu ko def donc loolu moo tax ne ñu wax ne nañu na nit ñi nañu ubbi seen sen seen seen xel di xool di xam ne vaccin bi effectivement. Euh, lu am solo la. docteur Cheikhou Sakho ñu ngi lay gërëm. docteur Ousmane Gueye ñu ngi lay nuyu yow yaa jiite SNEPS jamono yi mbas bi ñamuy faat gën a yokk ci Afrique yokk yit ci senegal ndax xam ngeen dëgg-dëgg lan moo ko waral. waaw euh, boo xoolee euh, Sénégal ñuy faatu effectivement ñu ngi lim bi day yokk chaque jour loolu bu ñu ko comparé ak li fi xewoon ci benn maanaam ci mois de mars ba juillet août ba novembre bi laa mën a wax sax. Eh, gis nañ ni eh, yokkute bi dafa gën a gaaw si biir yoon te defe naa waxoon na ko eh, contamination bi dafa gën a gaaw ñiy faatu ñoo gën a bare ci deuxième vague mais loolu lu ko waral buñ gëstu même bu fekkee gëstu commencé nañ ko mais résultat yi génnagul waaye mun nañoo xalaat ni la ko waral moom mooy cas grave yi ni ñuy bare te cas grave yi tax muy bare mooy cas cas ci maladi bu cas yi bëree rek cas grave yi bare loolu forcé la te bu cas grave yi bare rek ñuy faatu dañ fiy bare parce que boo xoolee réanimation liñ ci waxoon loolu waxuma ko sax ci kàllaama tubaab mais buñ liñ ci waxoon moom mooy bu cent personnes duggoon réanimation tey ji eh, mooy téeméer nit buñ duggoon réanimation juróom-benn fukki ñoo ciy génn lu ci ëpp ñeent fukki dañ ci eh, eh, ñàkk baken donc loolu mën a wane ni effectivement lii moo waral tuuti li waral li moo waral tuuti cas décès yo yob mais mën nañoo xam ni tamit bodd bi am na ci rôle bu am solo loolu la tubaab naa ne stigmatisation bodd bi am na ci solo nit ñi ñi ragal ñi boddi leen day tax ba du ñu teel a signalé pour mën a dem hôpital ak ñoo xam ne aussi ñu ngi fi ba tey jii nangu ñoo gëm ni jàngoro bi am na ne feebar bi am na yooyu yëpp da tax ba nit ki bu ko jàngoro bi dalee rek day yàgg këram du teel a wax ni feebar na du teel a dem hôpital ba mu dem ba loof soog a ñëw hôpital bu ñëwee ci situation yooyu mu nekk cas grave dugg réanimation lu ci ëpp mu ñàkk bakkanam donc boo ko jëlee daal ñetti facteurs yooyu bokk nañ li tax ji ñu am taux de décès bu yokk gannaaw ba ñu gisee ñi faatu yokk na ñay feebar it gën naa bëri ndax tey ji bërëb fajukaay yi attan nañu li ni mel. waaw jamono ñu toll nii daal euh, amaguñu benn jàqare lu jëm ci euh, lal. maanaam fu maladi fu ñu leen di dugal muy muy muy lal lal euh, pour ka euh, ka sévère wala ka simple muy lal pour euh, ñu nekk réanimation amaguñu ci benn jafe-jafe parce que boo xoolee tey jii ñu ngi ci ñetti téeméer ak fanweer ak ñaaru malade yoo xam ne ñoo nekk suñu hôpitaux yi te ñun am ñu lu ëpp juróomi téeméer lal disponible fi mu ne nii te fan yi néew hangar bi nekkoon na fële côté Léopold Sédar Senghor aéroport Léopold Sédar hangar bi dañ koy boolewaat ci capacité laitière yi Dantec mu ngi ubbiwaat yeneen euh, euh, ci euh, bànqaas pour ay yokk ay lal donc ñi mën a dem ba ci junni wala ñaari junni ci lal donc côté boobu duñ am benn jàkkare te ñaareel gis ngeen ne lu jëm ci ressources humaines maanaam nit ñi ci fa war a liggéey ministère fan yi wala depuis fan yi néew dugg nañ ci campagne boo xam ni pour yokk ressources humaines yi ressources humaines yi mooy maanaam eh, ñu war a liggéey ci eh, centre de traitement yooyu donc côté boobu amuñu benn jafe-jafe mais li ñu war a wax mais bi am na solo mooy lii ñuy topp ni lim bi ñuy am nii bu daggul continuer bu yàggee duñ ko mën a attan parce que saal yi dinañ fees donc mais fi mu ne nii moom wax dëgg yàlla alhamdulilah mën nañu mais yéen xam ngeen ni ñëpp xam nañu lim bi bu bu continuer nii dañuy toll foo xam ne dootuñ ko attal te loolu eh, ñaanuñu yàlla agsi foofu. ñëpp ngi xaar ñàkku bi yegg seegul te am na tension ba noppi ndax jotul ngeen gën a yaatal test yi ngir xam ñan ñoo am mbas bi ñu seppi leen ngir wàññi law bi. waaw jërëjëf xam nga eh, vaccination Sénégal mu ngi koy xaar comme eh, réew yëpp am na ñoo xam ne tàmbali nañu ñun ñu waaye ñoo ngi xaar suñu wàll ci ci vaccination bi. ba tax na ñu teg ay stratégie wala def campagne pour expliquer sénégalais yi lan mooy vaccin bi ak lu tax ñu war ko vacciner mais bu fekkee euh, lu jëm ci test yi euh, ñëpp nemmeeku nañu wax dëgg yàlla ne test yi yokku na parce que léegi bu néew néew néew bu ñu toogee ci bis bi test yi ñuy def dina àgg ci ñaari junni wala bu néewee ñe e, e, junni ak juróomi téeméeri test dinañ ko def donc ñëpp mun nañoo d'accord ak ñen ni test yi wax dëgg yàlla yokku na mais Sénégal nekkul ci logique boo xam ne dañu war a tester rek tester nii parce que nit ki mun nga ko tester tey ñu amul doomu jàngoro ñaar fan ñetti fan mu eh, eh, ñu teste waat ko mu am doomu jàngoro est-ce que ñi ñu testé woon dañuy delluwaat di leen testé defe naa loolu eh, suñu jëw leen expliqué na ko te ni mu ko expliqué leer nañ waruñu mën a dugg ci logique boobu mais tout compte fait war nañu continuer suñu test yi ñuy def deux mille tests baax na mille cinq cent tests baax na nañu continuer di tester suñu cas contact yi suñu cas naa loolu bu ñu ko continuer def rek mun nañoo vraiment kam xayma ñaata ñoo ci feebar ñi mun leen a jël en charge pour ñu bañ a wàlle defe naa loolu moo am euh, solo ci euh, euh, li ñuy def ni stratégie Sénégal bi ñu ko tàmbalee ak léegi surtout ci problème test wax dëgg yàlla ñu ngi ci stratégie bu baax te vraiment jox nañu ay résultats yi am solo boobu ba léegi nañu continuer nag gën a gën a sax ci loolu mais aussi ñaax askan gi ñu continuer di sàmmoo ak liñ leen digal bu loolu bu ñu ko defee rek wax dëgg yàlla même test yi ñuy wax ni dootuñu ko soxla parce que jàngoro bi. docteur Ousmane Gueye ñu ngi lay gërëm ma fàttali ne yow yaa jiite SNEPS. Docteur Cheikh Oussaro, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la COSAS. Aujourd'hui, euh, l'Union africaine alerte sur le taux de létalité en Afrique qui est de 2,5% contre 2,2% à l'échelle mondiale. Le nombre de décès augmente en Afrique également au Sénégal. Qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel phénomène Je vais commencer par présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des leurs à cause de cette pandémie. Donc par rapport à la question, nous avons que euh, le nombre de cas de contamination avec cette deuxième vague est beaucoup plus élevé. Donc cela veut dire que le virus circule dans la population générale. Et plus il plus il y a de probabilité qu'il va contaminer des personnes qui ont des comorbidités ou bien des groupes vulnérables. Donc, il va de soi que cela va euh, s'accompagner de l'augmentation du nombre de décès. Effectivement, le taux de létalité tourne autour de 2,3 2,4 et même 3 En tout cas, moi, je pense que c'est cela qui peut expliquer ce phénomène. Mais aussi, je crois qu'il est bon d'investiguer parce que nous savons que le virus a des variants. Voir est-ce que nous ne sommes pas devant un cas de variant plus virulent que l'original. Donc ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Nous avons reçu l'information de l'IRSF de Dakar, comme quoi on n'a pas encore détecté sur notre territoire de variants. Mais il faut rester vigilant. Mais plus le nombre de contaminations augmente, plus on a la probabilité que des personnes vulnérables seront infectées. Plus de cas, plus de cas graves, plus de morts. Est-ce que notre système de santé peut réellement faire face à cette situation? jusqu'à présent, notre système de santé s'est bien comporté, mais si nous regardons ce qui se passe dans les pays développés, les États-Unis, la France, l'Allemagne, qui ont, je ne dis, pas système de santé, parce que souvent il y, a, il y a une confusion entre le système hospitalier et le système de santé. Le système hospitalier est beaucoup plus robuste que le nôtre. Ils ont beaucoup plus de spécialistes, ils ont beaucoup plus d'infrastructures, de logistique, que notre système de santé ne pourra pas effectivement, si on, on arrive au même niveau, nous ne pourrons pas faire face. Notre système, en tout cas hospitalier, ne pourra pas faire face. Les autorités parlent déjà d'une campagne de sensibilisation en perspective de la vaccination. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt euh, se focaliser sur les tests plus massifs Euh, pour euh, détecter les cas euh, communautaires qui circulent dans le pays pour stopper ou ralentir la progression de la pandémie Dans notre riposte, nous tous, nous sommes d'accord que c'est les cas communautaires qui posent problème et ça expose au niveau communautaire. Donc, il faut une riposte communautaire. Et je crois que même notre comité national de gestion des épidémies est, est d'accord avec ça. Mais au niveau de la COSAS, nous disons que nous devons y aller Nous devons amener notre système à utiliser cette dynamique communautaire qui est très importante dans notre pays et donner la responsabilité aux communautés de mieux s'organiser, dans les villages, dans les quartiers, dans les lieux de culte dans les lieux de travail et laisser à chaque communauté de faire son micro-plan. Et nous avons des expériences, nous avons des ONG, nous avons des acteurs de la société civile qui sont très bien formés, qui peuvent encadrer dynamique communautaire là, ce que ce soit dans le transport, que ce soit ailleurs, si on responsabilise, en tout cas les acteurs de, de, de, de cette profession ou bien de ce milieu, de cette communauté, ils pourront s'organiser et en leur que pour la doutent, c'est clair. Il y a des gens qui, doutent. Il y a beaucoup de fake news, de fausses informations qui circulent et ça désoriente beaucoup de gens. Maintenant, par rapport aux tests, euh, moi je pense qu'il faut aller vers la vaccination, c'est clair. On ne peut pas être euh, euh, en marge du monde. Maintenant, par rapport aux tests, il faut tester pour savoir, il faut connaître son épidémie. Si on veut faire des stratégies pertinentes, il faut connaître la prévalence ou il se pose un problème de ressources. Est-ce que nous avons la possibilité de faire des tests de grande envergure et tout cela Ça, c'est une question qui est là. Mais dans le cadre de la santé publique, on peut faire des évaluations périodiques avec un échantillonnage bien déterminé. Et ça, permet d'ajuster les stratégies. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Il faut juste, comme je l'ai dit, il faut de l'organisation et de la méthode. Et il ne faut pas euh, céder au désordre, à l cacophonie. Il faut que nous soyons mieux organisés et faire confiance à notre communauté. Moi, je sais, les, les, les autorités administratives peuvent accompagner la communauté, les spécialistes de la santé peuvent les accompagner, mais faisons confiance à notre communauté ce ne sont pas des mesures coercitives qui vont régler le problème, ni des décrets, et ainsi de suite. Non, moi je ne pense pas. Je crois qu'il faut une meilleure organisation. Docteur Cheikh Oussaro, je vous remercie. Merci, au revoir. Gay, bonjour. Vous êtes le directeur du SNEPS. Aujourd'hui, on voit que le taux de létalité augmente en Afrique, également au Sénégal. Qu'est-ce qu'il explique si vous dites un taux de létalité de plus en plus élevé, je sais que jusqu'à hier, le taux de létalité au Sénégal était de euh, qui est vraiment en deçà du taux de létalité Euh, connue dans la sous-région. Mais tout compte fait, il faut savoir que si nous faisons la comparaison entre la première vague et cette deuxième vague, on voit, on remarque effectivement qu'il y a une augmentation du nombre de euh, décès. Maintenant, si on a fait une investigation pour savoir, effectivement, des investigations ont été menées, et peut-être euh, il serait un peu très tôt de donner des conclusions, mais ce qu'on peut dire en termes d'indication, on peut savoir au nombre élevé de cas graves. Et, et ce, nombre, ce nombre élevé de cas graves est en corrélation avec le nombre élevé de cas, parce que comme vous le savez, s'il y a une augmentation du nombre de cas, il y a une augmentation du nombre de cas graves, et euh, euh, forcément nous avons une augmentation du nombre de décès. Mais ceci peut être lié également à certains faits notables, tels que le déni, qui est toujours là, parce qu'il y a certaines populations de la, du Sénégal qui, jusqu'à présent, pensent que le virus euh, est une pure invention de l'homme, alors que ce n'est pas le cas. Euh, ils toujours que cette maladie n'existe pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi euh, une dose importante de stigmatisation qui là, qui fait que euh, beaucoup de malades euh, ne se signalent pas à temps. Ils vont pas très tôt dans les structures hospitalières. ou bien ils ne rentrent pas en contact très tôt avec les numéros utiles pour leur prise en charge, ce qui fait qu'il y a un retard tardif euh, ou bien un recours tardif aux soins. Et ce recours tardif aux soins entraîne vraiment euh, une, euh, une, gravité rapide ou bien une évolution rapide vers des états graves, ce qui amène euh, ce taux de létalité élevé. Je pense que vraiment, on peut pas ne pas, on peut pas parler de taux de létalité aujourd'hui au Sénégal sans pour autant voir ces facteurs qui sont là, que je viens d'énumérer, le déni, la stigmatisation, euh, entraînant le, le, recours tardif. Face à la multiplication rapide des cas de contamination, est-ce que notre système hospitalier peut aujourd'hui faire face vous savez, actuellement, je dirais que le système hospitalier est confortable. Si nous prenons la, la, la capacité litière, je pense qu'à l'heure où je vous parle, on a 332 à peu près malades qui sont dans nos structures hospitalières pour une capacité litière aujourd'hui qui est à plus de 500 lits avec une possibilité d'extension parce que vous savez, le hangar sera bientôt mis à contribution euh, au niveau de l'aéroport. Mais également, Dantec va mettre une cinquantaine de lits à la disposition effectivement de, de, de, de la directrice générale des établissements de santé, ce qui nous amènera à une capacité litière 1000 ou plus de 1700 lits. Là, à ce niveau, il n'y a aucun problème. Également, sur le plan ressources humaines, vous savez, actuellement, on est dans une véritable campagne de renforcement des ressources humaines. Donc, à ce niveau, il a pas de problème. Mais tout compte fait, il faut savoir effectivement que si on ne freine pas cette propagation exponentielle, si on ne freine pas cette augmentation des cas, à un certain moment, le système de santé ne sera que pour mettre des lits à la disposition des Sénégalais, mais ça ne peut pas continuer avec un rythme exponentiel. il faut l'avouer, il faut le reconnaître. La vaccination est prévue bientôt, mais en attendant, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'augmenter les tests pour identifier et isoler les cas contaminés? Vous conviendrez avec moi que le nombre de tests a considérablement Aujourd'hui, on fait tous les jours pratiquement à plus de tests par jour. Donc, ce qui veut dire Maintenant, euh, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Sénégal n'a pas une stratégie de tester tous azimuts. Aujourd'hui, vous pouvez tester 1000 personnes négatives, demain, ils peuvent revenir, ils peuvent être positifs. Donc, ça n'a pas vraiment, à notre point de vue, ça n'a pas de sens. Il faut aller dans le, euh, avec la même stratégie qu'on a eu à développer, et euh, tester des cas contacts, tester des cas suspects. je crois qu'avec ça, nous que si vous voyez, nous sommes à Maintenant, euh, pour ce qui est de la vaccination, vous savez, nous attendons euh, la vaccination comme tous les pays du monde, comme tous les pays du monde, avec vraiment une campagne de sensibilisation, avec une campagne qui euh, doit expliquer aux Sénégalais c'est quoi le vaccin, pourquoi le vaccin et quels sont les avantages euh, euh, du, du vaccin. Mais en attendant, nous continuons tranquillement avec nos stratégies qui, quand même, quel que soit Alpha, nous donne des résultats satisfaisants. Docteur Ousmane Gueye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur du SNEPS.